kilifa googu nga xam ne dafa dajoon àdduna jamono nekk ci biir xolu doomu aadama yëpp. wal falu inda rasulillah mu xarraaru laakin na ma ahmadul muxtaaru muxtaaru dañ koo tànn ba noppi tànnaat ci biir tànne fi. ñun lenn ñorul lu sëñ Tuubaa ak njabootam gi. di ñaan yàlla sunu borom xam ne dara tëru mu defal nu ak wér defal nu ak tal. defal nu ak mën te di ko jëfe fu nu sax ci ndigalam rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun noo ngi sant sunu mi nga xam ne ci moom lañ bàyyi ko woon te ci moom la ñuy dellu Cheikh Sidil Mokhtar bu fekkoon ne eh, mën nañu xëccoo dana tax du dem Eh, kon benn jullit du ko bàyyi mu dem moom la nu may surul masuun xar baax la feese ba ni góoj baay baa ko lëm ci xarnu bi doomi Sëriñ Tuuba dafa doy lépp te ñoom kenn ku ci ne danga am samay bopp goo xam ne gi moo la ko xaasale Cheikh Mamadou Lamine dafa bokk ci kenn ci njabootu Cheikhal Khadim yàggu fi loolu waaye suñ borom cërale woon ko loo xam ne nag euh, kenn fekk ko ci bi si jëkk ci wàllu baatin ma masoon moom la ko Cheikhal Khadim joxoon. Cheikh Mamadou Lamine nag ni ma ko waxee woon na seen Tuubaa ci wet yu bari waaye dañuy dikk ci mawhiba bi ak xaas ji. wax ci li nga xam ne bii gis nañ ko ci ay mbindam wax na ne makkante ni yaa rabbi tamkiina rijaal loolu ak waxee na sëñ bi benn la waaw sañ-sañ beeg may geeg euh, mbóot yeeg xaas yi da da daje na ci mu ngi roog loolu waxee na sëñ bi Cheikh Abdoul Ahad daf daan wax ni xaritam la woon da daa wax ni fu mu ko mas a fekk bu ko séenee bañam lay jëkk a gis bu agsee bu ko nee asalaamaaleykum kooku du wàllu yu waa Kajoora mu ni ko boole si bawal ak fépp loolu lépp ci sërul mason du ko seexal xadim jagale la woon la bokk kooku nag ku bàyyi ko ci moom ñu ne doomu melu mu mel rek du euh, du yem kenn loolu sant nañ ca euh, sant nañ ca soxna Mati Lay ndax dama ko ne du Mati Lay matu lay la ndax ku ñu yónni ci kër nga indi fam sëñ Tuubaa mat nga foofu lay fa nga jóge woon du sëñ Cheikh mati lay sëñ Cheikh matu lay la. sëriñ Bay Jaxate daa waxoon sëriñ Tuubaa ne moo mat te def lu ko mat moo yéeme def lu ñu naw moo tabbi pays boroomam génn may ku ne ndam sëñ Sidi Muxtaar loolu la doon dund 1925 bi mu feeñee jamono ba 2018 bi mu génnee àdduna ci boromam rek la nekkoon. kenn la ci njabootuk Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacke bokkoon ci ñi nga xamante ni bi feeñ nañ ci Mbàkke Kajoor ñu tuddee ko sëriñ Sidil Muxtaar mooy sëriñ Seex Awa Balla mu doonoon koo xamante ni bi way juróom Seex Muhammad Lamin Baara Mbàkke amoon na ci moom yaakaar lool ba tuddee ko jëmm jooju bi mu demee matal dal jàng itam sëriñ bi Seex Muhammad Baara moo dalal jàng moom ci boppam ngir bëgg ko barkeel àlluwaam soo ko jox waaye turandoom maam Cheikh Awa Balla. Serigne Sidel Mokhtar biñ ko joxee Serigne Cheikh Awa Balla mu mu jaarale ko fi nga xamante ne bi fa lañuy jaarale doomu soxna mooy jàngal ko alxuraan ak xam-xam jàngee na foofa jàngee na ci fi ñuy wax Serigne Ñaan Diop jànge na ci sëriñ mu dem ginnaaw ba nag la wàññi ñibbisi fii nga xamante ni bi moo di daaru marnaan nekk ak sëriñ Seex Awa Balla fa la sampee kër bi nga xamante ne bi jóge na fa nag mu dem dëkk bu ñuy wax tàmbeedu ci ay mbokk way juróom wu jigéen ba fa jógee nag la sanc kër ngànn Seex eh, euh, Sidi Maxtaar nekkee xalifa général bu moom le premier juillet 2010 li mu jëkkee def ñëpp dégg nañ ko dafa dal di woote daal di ni yoon wa sëriñ tubaa awoon day ak rakkam foofee laa fas yéene aw ndax daa mel ni doomi Sëñ Tuubaa ñoo ma mën seen yëf te ñoom ñëpp dem nañ tey nag ñi fi des mooy ñi ko bokk séq ko ñoo ko ñoo ñoo fi des mbir nag boo ko bokk ki nit séq kook ñoom dangay waxtaan ak ñoom ba dégg ak ñoom kenn ku nekk nga am loo ko nu mu tuddati ndax ñoo ci bokk yéene. niru euh, Cheikh Saliou lool ci ni ma waxe woon ne euh, yërmande ji ak ak ak bëgg gi Sëñ Tuubaa wóolu gi. mu nekkoon kilifa goo xam ne kilifa mboolem melokaan yi nga xam ne mooy day ci kilifa suñ borom defoon na ko ci moom ba ci njëkk di nekk bi gën a ëpp solo mooy kilifa goo xam ne ku ragal yàlla la. li ñuy wax yëbbatu taqwa suñu borom defaloon na ko foo ko gisee rek sax su xel dellu ci yàlla bokkoon na ci innamal mu'minuuna llaziina izaa zukira llaahu wajilat quluubuhum bokkoon na ci. mu nekkoon kilifa gu dal te loolu bokk na ci màndargay kilifa kilifa gu tabe kilifa gu mën a jaboote ndax dafa mën a muñ. Cheikh Sidi Makhtar Mbacké jëmm ju dal la jëmm ju yaru la muy nit koo xam ni eh, ku teey la nit koo xam ni ku mën a muñ la nit ku xam lu bari xam lu bari mën a sett mën a sette maanaam mën mën a ràññatle waaw ku yàlla may xel la ku mën a ràññal ku mën a seetlu la waaye nit ko nit ku ku ku dëggu waaw ku dëggu la nit la koo xam ne dama koy jëlale la xam na lépp waaye dafay jëlale. Cheikh Sidil Muxtaar daal suñu borom mi nu ko joxoon mooy ki nga xam ne euh, mooy matal jikko jikkoy doomu aadama la mu tagge woon yonente bi nag ci jikko yu rafet Cheikh loolu moo nekk ci Cheikh Sidil Muxtaar yonent bi ci boppam daa mel ne ba doon bàkku lam bàkku mooy ab yar ak teggin adaba nii rabbi fa ahsana ta'dibi laa waxoon sun borom ne ko wa innaka la'alaa xuluqin asiim moo tax nga màgg ba noppi am jikko yu rafet yi sëñ sëñ Tuubaa ne ko nag kon maa koy xotti li yére labista siyaabal majdi wal fadli wal ulaa wa fiika min axlaaqi maa ahdasal kulla loolee nag moo nekkoon ci sëñ Sidi Muxtaar ko a sutsaal doomu aadama nekk nit sikk yu bari waaye du ko jàmb du ko wax doonoon kilifa goo xam ne itam ku bëggoon Serigne Touba ndax mas naa wax ci làmmiñam na loo gis ma di ko def rek dàkk bëggu Serigne Touba jóolu ba ci ñim daan yóbbu Makka te mu doon lu ko itteel def ko liggéeyam bu ko ñor daa wax ne at maa ngi fàttaliku daaw jékki ba ñu bëgg dem ñu bare bari jàpp nañ ci ngir bañoon mu dem nakaar gunge ji leen mooy leen lii may def si liggéeyal sëñ Tuubaa laaj fas bu sama bakkan desee baax na. sëñ Bamba kat bu fekkee gaa yi jiitu danoo doxoon ci lislaam sëriñ Touba dekoon dafa naaw sëriñ bi daa jënd Touba nag mayee fu ko ko kon kum fi teg mat na ko tay sëkk neeti ma waaw. la yonent bi waxoon nag sayidul qawmi xaadimuhum kii nekk sangu bindeef yi faaw day day mel ni seenu jaam. Cheikh Cheikh Sidil Mokhtar foo ko mos sa fekk mi ngi ci liggéeyal bindéef yi lenn lu muy lu muy liggéeyal boppam nga xam ne njariñul boppam a tax ma di ko liggéey man xaw ma ko. dafa sacrifier boppam sacrifier ak njabootam door a man li mu man daanaka su ma koy nattalee damay wax ni dafa jël doxinu waajuram Cheikh Abdou Lahad roy ko moo tax tey jii fu ñuy tuddee kilifaam yu baax yi teg ko ci. wallaaxitu xayrun laka mina loolaa la xamoon addina mi loo ci am la yàlla dencal àllaaxira ko ëpp fop te demoon yonent bi wallaaxitu xayrun laka mina loolaa bu boobaa nag fa fa sax fu yuxtika rabbuka fa tarda loolee nag seen si Ahmad lay da tegan am xelam teg ci teg ci bëtam teg ci bëggam bëggul woon dara lu dul yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa tey doo dégg kàddoom bëriwul te jëf ju fi rëy mooma ak taali bi daal moo ko jàngalaat ñëpp di jëm joo xam ne itam diiru muy nekk Serigne Bara lu mas a am rek moomale na ko waa juróom wa bi mu nekkee Serigne Touba itam lu ko nit jox defaat na ko addi Serigne Touba faggulu dara ak njabootam faggulu dara boppam nekk na fi Serigne Touba lu ëpp juróom-ñaari at gisuma kër gum fi tabax gisuma tabax bu mu fi tabaxal boppam kon kooku lu mu somb rek liggéey Serigne Touba la. nit la koo xam ne boppam ñoru koon yittee boppam ñoru koon dara àdduna li muy bari bari bari bari ba de ay xemmemteef yàlla dimbaloon na ko de maanaam ñoru ko woon taalibe sëñ yee ko ñoroon ak liggéeyab sëñ Tuubaa bi ak dëkkab sëñ Tuubaa bi ndax lu mu loo mas a wax ci àddina rek loolu la ni mu fonke woon daara alxuraan yi ni mu fonke woon njàngum xam-xam ak ni mu daan dundalee ñi nga xam ne dañuy yëngu ci secteur boobu li mu daan séq ak ñoom ci ngay xamee ni mu fonke woon alxuraan ak ni mu fonke woon xam-xam. léppam alxuraan la woon léppam sunna la woon léppam Cheikhul Xadim la woon kon daanaka ab liggéeyam boo ko tënkee ci alxuraan tënk ko ci sunna tënk ko ci Sëñ Tuubaa moom moom ci ñetti ñett yooyu rek la doon dox amul ñeenteel. mu doon ko fonk alxuraan saa su nekk dana la laaj dongay bi ma ko mujjee. bàyyi xel nii rek ci jotaay bi ñu mu jot jotaay damaa ñëw nuyu ko yëkkati àddiya jox ko ko ngir sëriñ bi mu daal di yëkkatiwaat ab lim bu takku yónni ko seex Ndiaye yëkkati ko jox ma ko ne lii man dama ko jàppee ca daara ja ndax damay liggéeyal sëriñ Tuubaa ci liggéey bi nga koy liggéeyal. man na ko sëriñ bi man damaa bëgg nga may ñaanal rek maanaam ma liggéey bu ñuy liggéey sëriñ Tuubaa jàpp naa ne man la war. fam jaar sëriñ Saliou ak Cheikh Jili Cheikh Moustapha jaar-jaar yu baax la yu siiw bindoon na kaamil bu set nag cib loxoom ne ko cas jébbal ko Cheikh Saal talum koy wax mu tontu ca waaw fanweer yoon ak ñaar ca jox na ma ko ay kaamil ma sa tëliku lim boobee nekk 27000 yu topp defe naa lim baa ngi fii sax 27000 27408 ñaar ñaar fukki junni kaamil ak juróom-ñaar ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti téere loolu sëñ Sidi Muxtaar séddale moom la séddale daara yi ci juróom-ñaari at ci alxuraan la dox moo di ku ne teg na sa bët ba téere xam-xam yi itam ñu séddale ko majaalis yi hmm. ñi nga xam ñooy jàng ci waaw mooy moo ko daan séddale téere yi nga xam ne moo ci ànd itam bari gi ëpp na moom dañu di ko jox sëñ Moussa Mahmoudan ngir barkeeloo ko sëñ Massamba mu di ko séddalee mu fees dell ak yërmande fees dell ak kersa benn yéen rek la am mooy yéene cheikhul xadim yi mu amoon ci dëkkam bu sell bi am ko ci lislaam am ko ci njaboot gi te dénkoon loola cheikh Mouhamadou Moustapha nga xam ne ku fi mas a jaar ci nga mas a dëkk moom mu ne njabootu sëñ gi ak dëkkam bi ak taalibeem bi ab sàmm laa waaye duma bàyyi da kenn di ko ruur doomu aadama sun borom mën na ko may lépp waaye li ëpp doole ci li ko sun borom di may doomu aadama mooy nite nit ku nite nit ku nite foo gis rek xamal ne du nituk neen ndax loolu cër la bu suñu di maye ndax Sëriñ Tuubaa mat googee mu matoon nite gaa ko nite gaa ko raw mm-hmm. waaw loolu suñu borom da ko mayeen Cheikh Sidil Mokhtar. Cheikh Sidil Mokhtar ku sàmmoon la ku mën a jàmm yàlla la ku fonk bokk la bëgg Sëriñ Tuubaa la. Mm-hmm. te bëgg njabootu Sëñ Tuubaa gépp amul kii ak kaa ñëpp la boole yiir woo yërëm nit ku neex a liggéeyal la woon ndax fi jamono toll mu yilif yoonu murit yor ak njaboot di àddina bépp di ñëw ci moom te nit mësu koo man ci àdduna ne ko nàngam ak nàngam ci nit maanaam ba mu sukkandiku ci lu dul li mu gisal boppam teg ko bëtam xamal ko boppam. bi fi sëñ Abdou Aziz Bara bàyyi ko mu wutu ko ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine lim njëkk def dafa woo ñëpp bañ ñëw mu ne bëggatuma kenn di wax taalib yëpp diw laa ci biir kër gi. taalib sëñ Modou Bara la wala taalib sëñ Basko Dia la wala sëñ Abdou Lahad Bara la wala daal sëñ la déedéet nañ wax taalib yëpp Cheikh Mouhamadou la xam dajale njaboot gépp dajale taalibe yi ba ñëpp nekk wenn say loolu la njëkk a def. jëmm jooju nag nekkoon koo xamante ne bii kenn la ci kilifaam Serigne Abdoul Aziz Baara ku ko toppoon la <clears throat> ku ko déggaloon la ci ay ndigalam. Euh, Cheikh Sidi Mokhtar am na fu mu tegoon waaye fi mu tegoon du sunu njàmbaar du sunu melokaan ci baaxu boppam la nu jàppe woon ak démb. ñoo ngi koy sant moom Cheikh Sidi Mokhtar di ko gërëm. ci doyloo kim doyloo njabootu sëñ Fallou ci lii. ku ku fonkoon ñooñ sëriñ bi la mooy ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba rawatina ñi nga xamante ni bi mooy njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ndax it suñu waajur it daa am cër bu mu ko joxoon loolu moom sëriñ Moustapha te gis naa doomi sëriñ Moustapha yëpp kenn ku ci nekk xër na ci yow def na ci yow na ak yow ba kenn ku ci nekk it taxawaay bi muy taxaw ci yow da ngay jàpp ne moom yow rek la am. lii waajuram mu Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu waxoon ne. du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal sëñ Sidi Muxtaar bi mu ñëwee dafa yaatal lépp tàllal ñëpp loxo te boo xoolee ñi nga xam ne ñoom la séqale liggéey bi kenn ku nekk ak fam la teg ci ngay xamee ne kon moom lii mu doon dund xam na ne du yëfi kenn yëfi ñëpp la waaye itam nag mu ànd koog ñëpp. bi mu toogee gis nga nii mu def ñi nga xam ne ñoom la bokkal ke Cheikh Mamadou Lamine ñu ko ci mag mbaa ñim ci mag kër gu ne ñoo ñoo fa nekk di ay njaboot yëpp da leen digg taf leen ci boppam ku xool daal di gis. moom moom de la sëriñ Abdou Lahad waxoon rek boole de moom yàlla moo koy def ànd nag bu yàgg te rafet ay jikko rek ko mën a def. defal na ma loo xam ne lii jomm na ma. nekk nit koo xam ne ku mën a dimbalee la ndax su ma saa bay eh, ba noppi daf koy denc ci ay sàq suñ demee ba nga xamee ne di eh, nit yi li ñu bayoon jeex na. mu woo leen ñu koy bojj di jël dugub ji di ko séddale loolu yàgg na ko def rawatina 1972 bi nga xamante ni eh, nawet baaxul woon xiif xiif dafa amoon senegal bàyyi woon xel. Euh, taalibe yi la ak bokk yi. jaxasoo gu ma jaxasoo moom tax Serigne Saliou yónni ma fa jox ma juróom fukki saakuy dugub ni ma demal yëtal ma ko Cheikh Sidi Mokhtar. nekkoon na ko yeggalee nawet bi booba mois d'août lañ nekk bi ma ñëwee fekk ko kër ngànna ma fekk ñaari sàq yi juróom yoo xamante ni bii da ko may waa réew ma ñuy bojj di yóbbu seen kër nga xam ni day mel ni juróom fukki saaku laa ko laa yëtan waaye fekk naa moom mu yë mu ma téeméeri saaku yoo xamante ni bii séddale na ko waa réew ma ku ñëw ne yaa njëkk a def moo tax mu jóg di ca def sa jëf la ñëpp di roy fil bahri ak jéeri jamono dafa toll foo xam ne euh, roy mënul a ñàkk waaye royit bi ci ëpp solo mooy nga gis nit ki muy jëf tam bañ a yem ci waxi kese mm-hmm. moom nag yàlla mayoon na ko ci wàllu googu ci jëmmam la nga xam ne bu ko dee jëf ñu mën ko caa roy bu baax a baax te ku ca roy jële ca njariñ yàlla mayoon na ko itam mu néewal ay waxam lool mm-hmm. waaye baril ay jëfam lool te loolu lu am solo la ci jikkoy jullit. ku roy ci moom incha allahu tabaraka wa danga am li nga bëgg fii da ko am fan jëm. Sëñ Seydi Muxtaar muy koo xam ne euh, bindeef yëpp a ko ameelu cant ak ngërëm ñëpp ko war a ñaanal itam suñu boroom yokk ay leeram yàggal fi ak njabootam. ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom doole ay leeram te taas suñu ci barkeem. te li nga xam ne yéene woon na ko te ne woon ci itam suñ borom saxaat yu ja yoon wi nga xam ne xàlloon na ko itam suñ boroom saxaat ci njaboot gépp te ñu ngi ci rafet njoot dañu dalum xel bu baax a baax. man deselu ko dara daal euh, di ko ko ñaanal tey ñaan lépp loo xam ne lii lu mu fi bàyyi la sama borom def ci park Cheikh Sidil Muxtaar al xalifatul aam li taifatul ni yàlla yokk ay leeram. di ñaan suñu borom mi xam dana tëwu ko mu yokk ay leeram mhm. yotale ko ngërëmul suñu borom mhm. ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. ngërëmul borom Touba ngërëmul Cheikh Mouhamadou Lamine waajur mu tedd kon nag li ñuy ñaan yàlla ci barkeb sëriñ Touba yàlla fab loxoom teg ko ci ak njabootam te rafet nañ ci njort ndax yàlla du sànq jëf ju rafet. njabootam gi mu fi bàyyi itam mooy sëñ Moustapha ak ñii mu jaboote ñoo ngi ñaan ci dara gi sëñ Touba mii. suñu borom sàmm leen aar leen suturaal leen seytaane ba ñu ba ñu dox seen diggante. ñaanal doomam ji nga xamante ni bii ba moom moo fi nekk di Serigne Moustapha suñ borom wéral ko kàttanal ko ba li nga xam ne waajuram nesaroon na ko lépp suñ boroom àggale ko ci kàttan ak wér te defal ko barke ak lépp loo xamante ni bii bàyyi na ko fi. Cheikh Moustapha mi nga xam ne moom la fi wutal sa boroom kàttanal ko te wéral ko wéral ay ciram. mu àggale naa li Cheikh Mouhamadou Cheikh Moukhtar def naa li boppam ak njaboot gi ma ko àndal ñu ko sëñ bi takki woon mu diw saay rek ñu ñu doxee ko noonu mu yooyee rek ànd nekk ci ginnaaw Cheikh Mountakha mi nga xam ne moom la fi Serigne Touba teg ko sëkk yàlla na ko yàlla wéral te yàggal ko fii te may ko yéeneem may nu nun ñëpp suñu yéene barke borom Touba huqa al bukaau ala saadaati amwaati تبكي الأراضي عليهم كالزماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالزماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات